salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet waa Dak Médina maa ngi leen di nuyu di leen jaar di leen bëggee tey nag ñu ngi fii ci rue 27 angle 8 def seen reportage du jour ci assainissement bi la ñu ñëw tey gis ngeen boucher bi sama ginnaaw nii rek dañuy dugg rek laaj population Médina bi lan mooy seen xalaat ci boucher bi sama caméraman bu ñaawal bi Adama topp ma ñu dem dugg ci population bi. góor gi ñu ngi maa ngi leen di fay bu baax a baax. Ah, tur bi naka la nga présenté. man Dial Kouate laa tudd. dëkk Médina rue 8 angle 29. waaw euh, Dialkouté tey ñu ñëw fii ci rue euh, gis nañ fi ndox mi tamit mu nekk lu yàgg assainissement bi. lan mooy problème bi fii ci rue 8. problème mu rue mooy problème mu presque Médina yëpp ah. parce que actuellement nii bon ñun li ñu gis pendant notre bi nga xamee ne ñu ngi nekk ay xale amul woon lii ñun on est né avant ñu def tali yi fii depuis kenn xamul kañ la. donc bu fekkee par dem ma demee ni dafa war a laajaat ñu xoolaat canalisation Médina bi actuellement gis naa ñu defar borori 15 yooyu yëpp bu fa demee yaa ngi gas. je pense que looloo tox ñu koy defar donc mais fii ci riwit bi depuis Malick Sy canalisation bi jaar fii dafa def descente bi mu ñëwee ba fii nag mu am bouche mu tu am mu mu bouché fële. boucher boobu nag moo indi problème bi il faut ñu yokkal yàkkali canalisation yi parce que habitation yi dañuy doubler dañuy tripler sax loolu moo ko indi ñu am yaakaar ne nag ak actuellement ni nouvelle autorité yi nga xam ni avec les comment les élections yi municipales yi passé dañ ci taxaw pour mun ko defar pour mun ko defar ba pare ñu assainir Médina nag parce que Médina aussi c'est pas un lieu xam ne ay garage ak ay jaaykoti bant ak ay yëpp ñoo ci nekk yooyu dañ leen war a def comme ni ñuy defaloon waa Sodida dafa beneen terrain aménagé ko pour ñooñu affecté leen foofu Médina nekk une une une ville d'habitation benn cité ñun loolu la ñu gis. lii bi ñu ko seetloo lii yàgg na. waaw effectivement bi ñu ko seet bi ñu ko seetloo yàgg na encore une fois man fii laa juddoo si kër gi en 1942 laa fi juddu fekk sama ñoom maam ñoo fi ne ñun fii lañ doon fubale riwit donc fii musul am ndox boobu tam fii suuf abattoir bi nekk fii en face que ñoom Youssou Ndour donc ñun fii lañ juddoo fii lañ xam d' accord ñun toxu nañ parce que dem nañ ay euh, Yoff wala yu kii mën am suñu kër mais loolu moo indi problème bi dafa surpeuplé actuellement Médina il faut dire la vérité parce que ñun bi ñu nekkee fii ñun ñëpp xamante woon nañ kër yëpp xamante woon nañ kër goo tudd fii mën naa la wax borom kër gi wax la sama xarit fa juddoo ñu fa dëkk. donc donc loolu moo indi li leer ba leer daal mooy actuellement bu fekkee dañu bëgg a jàppale Médina rek nañ ko assainir waaw def évacuation d'eau yi ñu defaat ci ay tuyaux yu bees defaraat ko yëpp di dem ba pare nag vraiment ñu jàppale ñu aussi ci encombrement bi waaw parce que fii c'est pas un lieu ba xam pour jaayukaay la wala nu def résidentiel la ah nouveau maire bu bees bi Bamba sunu jarbaat la sunu doom la sunu lépp la nañu jàppale Medina parce que Médina aussi bu fa bu bu dema bu buñ ko bu falaa wootee ni Médina jàpp na ci donc léegi war na mën a jàppale Médina sur tous les plans moom moo nekk maire ñëpp amatul kii fii la féete amatul kii fii la féete ña fa nekkoon di concourir yëpp moom bi mu ñëwee moo leen gagné donc moom il doit il doit diriger la euh, la Médina pour rassembler tous les Médinois auprès euh, du président oh, donc comme déjà il y a def euh, comme conseiller auprès du président a avec portefeuille est-ce que vous voyez avancer avancé sur le plan administratif et sur le plan du pouvoir Medina, de sur toute la ligne le règle, demande donc yalla ko yalla le momit ak ñi andal ba nga xamni bu ëllëgee dina mëna a Médina ba mu nekk une ville vraiment merveilleuse. appel bi bon c'est facile moy comme tons bi limu wax léegi Médina bon avant c'était pas comme ça quoi mais bo seetloo avec les immeubles tout ça tu as vu xam nga c'est nombre quoi boo seetloo canalisation yi fii descente la ni ko grand bi expliqué parce que à partir de Malick si Diop yëpp fi lay wàcc si bon donc léegi les canalisations bu dee léegi dafa dem ba nga xam ne dafa dem ba màgget ba toj suuf ci dugg si dootul dem léegi dee que mu arrivé fii fi nga xam ne moo ko war a laase pour mu dem kanal Gueule Tapée dootul dem léegi nag il fallait que c'est forcé muy génn. xam nga et puis il faut voir les immeubles là immeubles yi ngay gis y des centaines et des centaines de personnes yoo xam ne ñoo fi dëkk te melul woon nii grand bi li mu wax la dafa fees mais nag aussi vraiment di woo monsieur le maire Bamba Fall Bamba Fall moom kenn xamul fu ko Médina teg sama waay la sama grand la man moom je vote pour lépp sama lépp Bamba la mais nag aussi man su ma bëggee Bamba à cette manière et puis sama koñ mel nii aussi ça m'a fait parce que même fii mes voisins me disent ça yow Bamba ngay votel te xoolal sa koñ bi c'est décourageant mais loolu yëpp ñu dëxañ ko rek si lenn parce que rien n'est trop tard. waaw waaw liggéeyu état la mais comme yàlla def na ko léegi mu donne un ministre conseil bon ça lui facilite beaucoup de choses parce que ñëpp xamoon nañu Bamba moom bañkat la woon musul nangu xam nga dem comme dem aussi bon santal yalla diko il a l'avenir devant lui hein, sa propre avenir son destin c'est devant toi c'est pas le maire seulement mais nak liko fi dese son dernier mandat li koy ñaan surtout surtout medina bi bu woré ba daj amul koñ bu melni suñu bi donc son campagne il devrait tout faire pour dimbali c'est si de ñuy je suis de 68 mon je suis de grand -nène, il est de 50, 42 ans. Moi, je suis de 68 ans. Je suis de l'église, a fait qu'un médina. Il est de en 92, c'était devant moi. Le moment que le Sénégal a organisé la Coupe d'Afrique ici, c'était devant moi, c'est en 92. Je sais pas. Moi, je dis que je les remercier. Bon, c'est une initiative pour Askan, vraiment, ce qu'ils dañuy dund parce que ji nga xat bu bon bi di ko nooyi rek c'est du maladie. man ma ngi lay fay gor gu bax tur ab sambay la. Medina di sey fi ci keur gewel yi. Uh-huh. wa tay ñu ñoo fekk leen fii uh, boucher bi fi mu yagg fi lool ban appel ngay lancer limay lancer moy mooy bi nakari nañ torop yagg na fi lool torop torop torop torop kep ku falu ñu defee rek boucher bi dana dañ mm-hmm. te boucher bi daf fi gëna sax. nañu dimbali ci buuse bi sunu doom yi yooyaa ngi leen di matt ñun bu nu guddee du nu nelaw yooyaa ngi nuy matt buuse bi bu nuy dox bu ñu sañsee ba pare sunu sañse yi dugg ci buuse bi suñu yeggee ñu duñu xeeñtu lépp buuse bi rek nañu dimbali ci buuse bi ñun bëggunu dara buuse bi daal sax fi te ku falu daal doo faale koñ bi loolu metti nañu torop nañu dimbali ci buuse bi góor gu baax loolu la amoon lu ma ci doon wax maa ngi lay fay tur bi naka waaw léegi Fatou tey ah, ah, ñëw fii bouse bi euh, bouse bi ti Medina bi rek tabarkàlla soloñ hmm. maa ngi ni sama néeg ngi ni parenteer baay nii man maa jàkkaarloo bouse bi hmm. waaye tu yooyeeg xet gi yëpp dañuy bëgg rek suñu waa kër yëpp dañu feebar ndax bouse bi luñ leen def nañ ko dañuy téléphoné di wax te bu ñu kenn duñu wuyu nii nañ koy bàyyi ñuy dox ci biir bouse bi mënuñu si dara bouse bi nag daf fiy yàgg da ko war a dindi lii dafa yàgg ti Medina xale yi su judd woon sax sëy Nunu si jappalé ngir yalla gouvernement bi jappalé suñu busi bi ngir yalla nak ñu mëna a sentir dala bok suñu yaram mëna am wér gu yaram ci barku señ baba nunu ci nañu jappalé ngir yalla nañu jappalé rek mënu jappalé sa ça fait dina xam ni def ni def suñu koñ bi yenn sa dina bëgg sax bi fi ci kaw ñu ko wax ci karaw waaye duñ ko mëna karaw bi nak ku dëgg ci bi dëgg ci karaw yi lolo ñu tere def karaw suñu buntu kër yag na fi torop man presque xamna mën na ni bama juddo fi la ko fekk bama joge guiné man guiné la nekkoon waaye bama juddo ba léegi ni la fekk bousé bi sa mag ñee ñepp fi len fekk bousé bi wallaay tabarkaal yag na fi tol na ñu dimbali ngir yalla bousé bi joge fi. wa ma ngi len di fay bu baax a euh Ibrahima Fall. wa euh, appel bi ci lancer moy euh, pour autorité yi nekk medina ak euh, Sénégal bu ñu ci mëne dimbali parce que tamit li neexul tu vois day indi ay feebar xalé yi fi fo et tout ça yépp Euh, je pense que ni Médina problème bi ñu am mooy canalisation en fait canalisation mooy problème mu Médina bi yëpp parce que dafa yàgg depuis 1914 ba léegi kon heure yi te population yi euh, dafa dafa multiplier wu peut-être par 10 wala plus sax léegi ko ce qui veut dire que ni canalisation yi entonatuñu euh, population bi fi yeewoo moo waral boo seetee yi yëpp di am am léegi nag déggoon naa ni état bi am na benn projet buñ ci buñ ci buñ ci bu ñu si sóobu pour euh, dimbali population bi parce que kanaal yi dafa ya yàgg dafa yàgg et que loolu moom bu ñu si autorité yi mu mënee dimbali je pense que ni suñu intérêt lu ñu parce que nit moom balaa ngay wax dara da wax wér-gu-yaram te lii moom mënu tax ni wér wér-gu-yaram am population bi tamit am nañ ci part de responsabilité aussi parce que nit ku nekk je pense que ni fi nga dëkk war nga ko setal d'autant plus yaa fi dëkk Euh, parce que di nga gis parfois yenn nit ñi ñoy def ay acte yo xamanteni té ñoo fi dëkk di def lo xamné lu wone li du pawul ak euh, ci ci lu set dal parce que bo féké canal nga ci sotti yenn produit wala yenn déchets yi je pense que ni day gëna faciliter euh boucher bi dal lool tamit population bi war nañ ci gëna farlu di xolaat di ñi këpp ci canal yi euh, je pense que ni lool buñ ko buñ ko mënee dina mëna am lu mu wañi autorité yi liñ ci mën kenn mënu ko ñun dañuy lancer appel ñu mën ñu dimbali maire beeg autorité yi fi nek ku ci mëna japp rek ñu japp ci parce que Médina ñep problème bi la ñam ah, problème bi la ñam waaw encom encombrement bi tamit euh, benen problème la parce que léegi da ngay xol euh, medina garage yi atelier ak yëpp deug la ñep dañuy daan doole waye mën nga daan doole bañ a lor je pense que ni ñi nga dëkkal parce que da ngay xool parfois da ngay gis ni dañuy gaare fu ne dañuy gis kenn ku yor benn pàkk bu ndaw gaare quartier bi yëpp te bu nekkoon sax day gaare pare guddi gi jot ñu ranger ko dina tane xam nga mais dañ ko fiy bàyyi pendant des mois da ngay gis sax ay oto yoo xam daf fi def at am ñoo xam dañuy yor seen i épave seen kër ñëw jox ko mécanicien bi mu gaare ko war ko defar du ko defar parce que oto bi da ko sonol mu yóbbu léegi nag ñooñu dañuy tëdd seen kër ne si jàmm ñun ñu fi tëdd duñ ne si jàmm te oto yi lu ne mën na ci xew xam nga amul dug du lu kii parce que suñu yaay aussi bu guddi gi dañuy doxoon bëgg di doxantu mais amuñu sax suuf buñ dox yaa ngi gis fu ne ngay gis euh, garage fu ne ngay gis kii je pense que ni mën nañ ñi ñëpp ay mbokk lañ dañ même bu ñu fi dëkkul ñenn ñi fii la ñuy euh, daanee seen doole je pense que fi ngay daanee sa doole da boo la war a gënal sax yow fi nga dëkk xam même boo ñibbee sa kër tamit fi ngay passé sa majeure partie de temps yëpp fi nga koy passé kon yow it da war a contribuer si si développement wu quartier bi parce que yéen lépp loo gis rek waxtaan la parce que ñoom ñu fiy liggéey tamit mun nañ ne ay frère lañ am na yoo xam ne mënoo fi tëb di ko def mais autorité yi tamit war nañ si mën a euh, teg loxo pour mun a gën a sensibiliser nit ñi ñu waxtaan ak ñoom ku ci mën boo paree liggéey nga ranger say bagages sa magasin. bu fekkee oto yi nga xam ne comme oto yi gaare mënatu ku ko mënul kii nga bañ a jël engagement boobu di fi teg oto boo xam ne après yow borom a ngi tëdd këram ne si jàmm nit ñi ko fi tegal duñ ne si jàmm loolu tamit beneen phénomène la mais lépp loo gis rek ci waxtaan la mën a mën nañ toog autour d'une table ñu waxtaan xool yan solution la ñuy teg pour yooyu yëpp mën mën ko éviter parce que mënoo tëb rek di ko fi dindi parfois déjà amoo amoo amoo doole boobu autorité yi nag foog ñu ànd seeg population bi yëpp ak ñi fi liggéeyee ñu waxtaan ci trouver trouver solution je pense que ni lool buñ ko défé dina gëna yomb ci nit ñi quoi